te li na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo lu jëm ci wàllu njàng mekk njàngale mekk élèves yi nga xam ne maanaam ñooy def examen tey ji ñaari fan ci weeru juin la état bu Sénégal waxoon ne moom la ñuy dooraat njàng mi ba tax fan yi yëpp nga xam ne moom la ñu génn bëri na ay jàngalekat yoo xamante ni yóbbu nañ leen ci bërëb yi nga xam ne maanaam fa la ñuy jàngale waaye nag loolee lépp di commencé waat njàng mi état bu Sénégal jëlaat na ko ba mu rafet maanaam mu teg ko ci suufa yéenekaay yëpp xëy di ñu xamal laan ñu ak fiasco dëgg moo ci am pëccëxoo gi nga xam ne moo am te nguurug Sénégal doxalee ko ci lu jëm ci wàllum njàng meek njàngale mi maanaam fu ko waaye natt daan na koy passé yéen kay gi di Vox Populi ak Le Témoin mu ñu xam ñu état bu Sénégal daan nay dàq lu jëm ci wàllum ubbite gi daan nay dakkal tamit lu jëm ci wàllum jàngalekat yi nga xam ne doon nañu leen jëlee ci ay gox di leen yóbbu ci ay gox yéen kay gi di L'As mu ñu xam xamal ñu nguurug Sénégal kay bu ñu waxantee dëgg maanaam lépp la dakkal journal bi nee na dëgg gi dafee tege woon ñi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi lànk bañ a gis dëgg gi dem nañ nag ba nga xam dañoo ñàkk nangu dëgg gi yéen a kaay gii du l'observateur na lii lépp maanaam da doon xeeñ yéen a kaay gii di réew mi quotidien mu ñu xamal naan ñu li nga xam ne maanaam moo amba des bokk na ci woppi coronavirus ji jaaba jonge ci réew mi loolee tax na lu jëm ci wàllum intelligence artificielle contre covid 19 tax na lu toll si junni ci ay robot intelligence maanaam daan nañu koy proposé Abdoulaye Diouf Sarr ngir nag ñu xeex lépp loo xam ne maanaam jëm na ci woppi coronavirus yéen a kaay gii di source a moom xëy ne man ci njàng meeg njàngale mi laay wax ak lajjite gi nga xam ne maanaam mag Macky Sall ak Mamadou Talla mi nga xam ne maanaam dañoo daw ñaan li dëgg la ñu def ndax nag yàgg nañu leen wax na leen jamono ji jotul ngir ñu ubbi l'école yi ñoom ñu mel ni maanaam ñu dégg waaye nag dem nañ ba nga xam ne mënatuñoo ñàkk a daw yéen a kaay gi du l'observateur mu ñu xamal la ñu bu passé lajjite gi nga xam ne gouvernement bi lajj na ko am na nag ay les waxul yoo xam ne am na ci ndax am na pression yu métti yoo xam ne maanaam tege na ci Macky Sall yéen a kaay gi de la turbine mu ñu xamal la ñu ñoom daa mbóoj syndicaliste yi li ñu sàkku jamono ji maanaam Mamadou Talla mi ñu dénk njàng mu digg doomu mi ñu daal di koy dàq ci ni mu gën a gaawee ndax Mamadou Talla maanaam ndundi bu ñu daakaande la jamono ji ci ay làmbatu yu méttee métt la nekk du suñuy kàddu jàngalekat yi ñooy wax yéen a kaay gi di Sud Quotidien mu ñu xamal nañu kafuyaas dëgg moo amoon ci départ bi nga xam ne jàngalekat yi maanaam départoo nañ ko dem ci bërëb yi nga xamante ni fa la ñuy jàngale waaye nag lii nga xamante ni moom la ñu gisat maanaam cacophonie totale la maanaam Macky Sall rat sa ko journal bi di Sud Quotidien xëy bindee a kaay gi de la turbine mu jàngalekat yoo xam ne jamono ji dañoo amee coronavirus maanaam dañu leen a testé ay jàngalekat yu génnee woon Dakar lu toll ci fukk ci ay jàngalekat ca diwaanu Ziguinchor amee nañu jàngoroy coronavirus ñi nga xam ne ñooy waa Matam ñoom nag nee nañu am na loo xamante ni du ñu ko nangu tey du ñu ko nangu ëllëg maanaam waa Matam nee nañu nañu quarantaine jàngalekat yi nga xam ne maanaam ñooy jugee ci bërëb yi nga xamante ni woppi coronavirus jë dafay jàbba jonge Matam nga xamante ni ñu bëri jàppoon nañ ne du amee coronavirus jamono ji jàngoroy coronavirus ji ma ngay lëmbee Matam journal bi nee na léegi région yi nekk ci Sénégal gi yépp amee nañu coronavirus yéen a kaay gi délibération mu ñu xamal naa ñu lu toll ci téeméer ak fanweeri ci ay jàngale kat jamono ji dañu leen quarantaine maanaam cent trente enseignants yéen a kaay gi bàyyi mbir moomee wax ci mbirum yoon ak audience yi nga xam ne tey jii war naa commencé waat waaye nag ministre bi ñu dénk wàllum yoon ci réew mi dafa waxoon ne danañu jël matukaay yépp audience yi mën a commencé good fine waaye nag b léegi nii maanaam dara sottiwu sa loolee moo tax mbootaay gi ëmb syndicaliste yi nekk ci wàllum justice ñoom nag ñoo ngi koy naqarloo yéen a kaay gii di réew mi quotidien mu ñu xamal lan ñu lu soxal woppi sa tax na doomi Abdoulaye Wade ji di Karim Meïssa sa daal di jox gouvernement bu Sénégal lu toll si juróomi junni ci ay kit test rapide ba tey ci biir journal bi mu ñu xam xamal lan ñu woppi sa def na ci réewum Sénégal lu toll si ñett ci ay weera jàngoro ji maa ngi law ci biir réew mi état bu Sénégal jamono ji dafa néew doole askan wi ñoom seen bopp dañoo bàyyeeku réew mi quotidien ñu fekk fa jibi jaxate sociologue la mu xamle nee na il faut nguurug Sénégal am fulla am fayda amu fit ngir nag confiné yenn ci ay localité jibi jaxata nee na nguur ci boppam maanaam moo wurut a yox-yoxi bu waree jël ay dogal daf ko war a jël ba mu mat sëkk yéen a kaay gii de la témoin mu ñu xamal naan ñun ñi nga xam ne ñoo nekkoon jàmm gën bañ ñu suul fa ay néew ñooñee ñeent si ñoom tey jii danañu janoo ak procureur maanaam ñu leen defeere yéen a kaay gi nee na am na timit ñoo xam ne tegoon nañ leen loxo ca diwaanu Cap Skirring tey jii ñoom tim danañu janoo ak procureur réew mi quotidien nee na gendarmerie def na bilam ca la xam ne moo xewoon a kaay gii de les échos ñu am na ñetti employé yu seen o yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan ci département bu Mbour maanaam ca Joal ñooñee dafa am liggéey bu ñu doon def tuyau ba explosé maanaam ñu lab ca ndox ma journal bi du l'Observateur ak Source A ak Vox Populi mu ñu xamal naa ñu lu doy waar moo xew Touba ca morgue ba dafa am benn soxna boo xam ne dañu ko fa faa fanaanaloon moom nag ay atam ëpp na téeméeri at waaye nag ay mbokkam bi ñu xëyee dañoo gis ne am na ay cëram yoo xamante ni jot nañu ko laal baaraam bay nàcc sikkim ba di nàcc journal bi di Les Échos mu ñu xamalaan ñu Senelec dañu ko naroon a caxte caxte yàq ko yaxeete askanu Sénégal du ñu ko yëkk yéen kay gi di Dakar Times mu ñu xamal ñu manifestation yi jamono ji maanaam ñoo ngi mel ni tulleeg male sa États-Unis la waral mooy mbirum racisme bi nga xam ne soo muy tulee mooy taal Amérique waaye ki nar a taal Amérique dëggantaan mooy Donald Trump Donald Trump mii ak kàddu yi nga xam ne moom la yëkkati maanaam loole dafay xaajale américains yi Donald Trump est-ce que nag américains yi maanaam juumu ñu daal di koy fal yéen kay gi di mu ñu xamal ñu club bii di Naples te ñoo noppalu jël Kalidou Koulibaly jox ko waa Liverpool ndax Liverpool jamono ji nelawutuñu ba yandoora maanaam dafa mel ni bu ñu amul kuli bali ci seen défense bi dafay mel ni dafay am lu leen di jot jamono ji waa Liverpool nee nañu 40 milliards pare nañ ngir jox ko Naples ñu ne déet waaye ñu ne pare nañ ngir jox leen Origi jamono ji nag entraîneur bu Liverpool li mu bëgg mooy Kalidou Koulibaly ak Van Dijk loole daal jamono ji moom lay gént ba tax lenn lu nekk Liverpool mën nañu ko ci Kalidou Koulibaly ngir andi ko Liverpool